jaajëfalaat bu baax a baax yéen ñi topp ci Leewtoo TV nee naa leen mbégte ak contentement lay am su ma jënd ak yéen di nuyu ñëpp ñu topp ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax noonu laay def daal di nuyu sama mag Mbaye Babacar bu ñëwee leen di gën a fës maa ngi lay nuyu. jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax suñu xarit yi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di bég ci ànd bi nga xamante ne bii Leewtoo TV la ñuy àndal ngir lépp la nga xamante ne bii information làmb la fi leen koy jëlee fi ngeen ko jëlee ba tax nag leen di may revue bi mooy huile Jador indi ñu gàmbu complet boobu huile sans cholestérol baax ci xale baax ci mag indi ñu vermicelle Jador macaroni Jador spaghetti Jador ñu ne déet waay mu daal ci teg attaaya Jador kenn du Aziz Aly Ndiaye kan mooy topp mbay ñu ne déet mu teg ci attaaya Jador ki ci topp moom mooy Eau Kayar ndox mi nga xamante ne bii macha allah Sénégal yépp àndandoo d'accord ne ndox mi li nekk ci biir ndox mi ci biir ci Eau rek leen ko mën a fekk muy set sell oyof ba pare neex a jëfandikoo senegal yépp àndandoo nangu ne OCAR mooy ndox mi ñuy aar. OCAR ndox mi ñuy aar ba tax na damay ne saraax ci journal suñu lam ka ma xëy ci xëtam mu njëkk nag di Bombardier adversaire Balla Gaye ba ba ñuy naatable démb na ndax Balla Gaye dina mën a mettre kawo kii di Bombardier xale ba ca Mbour nag mu ngi xëy di ko artu nee na dina di mettre en garde kii di Balla Gaye numéro 2 nee na kii nga xam te ni mooy Tyson mettre na ko kon cek mettre na ko kawo kon Balla Gaye war naa mën a tiit fu mu ne nii. nee na Balla war a koo jaaxal ndax incha allah li mu préparé incha allah bu jàkkaarloog moom war na koo mën a dóor li nga xamante ne bii mu daanu mais Bombardier nag ñu laaj ko ne ko sa diggante ki nga xamante ne bii mooy bom mooy Balla Gaye ndax dëwnu daanu war na jee mën a am mën a waaw mën na cee am ndax ñun ñaar ñëpp ay attaquant lan ay mbër lan ya nga xamante ni bii du ñu xaar te bu arbitre soufflé ku ci nekk day dox ci sa morom kon lu nekk war na cee mën a am euh, waaye suñu làmb nag ñoo ko seete woon bañ ko seetee Bombardier dalal leen ci benn salle de musculation bu muy entraîné foofu ca Mbour foofu la yëkkatee yooyu les kàddu mu ñu ne mu ñu ba léegi ñu laaj ko lan ngay xaar ci Balla Gaye mu ne li may xaar ci moom mooy li muy wax ci signature yi comme que nee na gaynde la li muy wax ci jouru signature yi bu ñëwee jouru làmb ja na ko dëggal bu ko dëggalee rek combat bi dina neex. te noonu nag Tapha Tine le géant du Baol et premier vrai test nag pour Boy ñaa la Fils de Dégol Mbaye Babacar. Euh, premier test loolu la li nga xamante ne bii ñooy suñu làmb wax gannaaw ba mu lajjee ci ki nga xam ne moom mooy la de Guiers numéro 2 ndax bëri nag Lac de Guiers numéro ñu jël ndam li jox ko Lac de Guiers numéro 2 bokk ma Tapha Tine euh, Boy ñaa war a jàkkaarloo ak Tapha Tine suñu làmb nee na lii testam bu njëkk la war a doon ci cercle bi nga xamante ne bii fa la ponkal yi ngànk làmb ji nekk ñu leen di tuddee les VIP. bi nag bu ci jàllee war naa mën a dëggal boppam foofu nga xamante ne bii moom mooy ci euh, VIP Boy Niang préparé na combat bi ci ni mu ko war a préparé waaj na ko ak i mbokkam wante dafa am champion bu mag bu mu war a dajal muy ki nga xamante ne bii moom mooy tafaatin Tine te Tapha Tine fi toll nii buñ ko xoolee mu ngi toll ci téeméeri kilo ak ñeent fukk macha allah moom tamit pare na ci côté yëpp ci combat bi. ca noonu rentrée des États-Unis en toute discrétion fekk États-Unis sans xumbaay sans mumbaay guy gi daal mu ngi di groupe xam di rey boppam. dafa ñëw ñëw ba nga xamante ne bii ñëw ba ànd ak sutura la noonu lañ ko mën a waxee ñëw ba nga xamante ne bii amul benn ambiance ñu bëri teeruwuñ ko mu def États-Unis nag weer ba nga xamante ne bii mi ngi doon entraîné nee na yokk naa doole yokk naa li nga xamante ne bii mooy box te it fi mu toll nii maa ngi yëg sama bopp bu baax. ci weewu bay mooy ki nga xamante ne bii moom mooy euh, guy gi fi mu toll nii mu ngi ci état de forme bu baax macha allah te li mu bëgg du lenn lu dul jour combat mu jàkkaarloog rëg-rëg jëm ko déstabiliser daan ko jël ba nga xamante ne bii amul benn werante ca loolu nag xale ba dem MMA daal di ciy dugg pour la première fois di Modou Anta numéro 2 nag mu ngay waral amal premier combat am ci wàllu MMA mbay Babacar. premier combat am ci wàllu MMA Modou Anta mu ngi dëkk benn dëkk bu ñuy wax euh, Kër Bookar fii ci Tiwaawan foofu mooy euh, natifam foofu la cosaanoo mais Modou Anta numéro 2 mii moom kese moo nekk foofu ci Brésil di pratiquer li nga xamante ne bii moom mooy euh, MMA ci dimanche bi nag dafa séenee amal li nga xamante ne bii moom mooy combat benn brésilien incha allah nee na dafa xiif brésilien bi ndax pare na ci côté yëpp te brésilien bi dafa nekk ka nga xamante ne bii dafa bëri wax te bu ko jàppee daf ko bëgg a liggéey combat bi jeex. Thierno Nathie Jackson lañ jëm le roi en lutte mu ngi teg fa nag 1 million samedi bii waaye pour la koy tegee incha allah. pour la ko tegee ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Jax mi nga xamante ne bii ku nekk xam na ko ci tëgg ay tournoi de lutte xamante ne bii amul dóor samedi tey mu teg un million foofu ca Pout woo mbër yëpp woo ñi nga xamante ne bii ñooy dund làmb foofu yëpp ci Pout wante mu ànd ci ak ki nga xamante ne bii mooy Muniru Njaay Mounirou jaay nag mën nañoo wax ne maîtriser na zone boobu ndax xam na fa lu bari te it euh, ruq-ruqaan ya nekk ci Pout yëpp xam na ko looloo tax Jax lëkkaloo ak moom ñoom ñaar ñu organiser gala de lutte bu am solo boobu. Mbaye Babacar yaa ngi yàq sama journée waaye yaa ngi yàq sama rêve fi mu ne nii gàddu Diouf nag proche Balla Gaye numéro 2 la la muy xam ne ci journée bi da mu ngi avertir Bombardier naan ko du moom moo ñuy bare dut bi. incha allah taxawal bala ngaa continuer naka laa yàq si xam naa moom xam na nañ <laughs> wax na day leer man moom wax damaa bëgg mu sol tubéy wax dañ koy téegalu téegalu léegi bu ñu jógee foofu ñu jàll ci ki nga xamante ne bii mooy Gabby Diouf ku jege Balla Gaye numéro 2 la moom mooy président force sécurité banlieue moom nee na Balla Gaye am na ay bagages yu daan ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier ndax benn moo gën a nekk xale ñaar moo gën a bëgg li nga xamante ne bii mooy combat bi nee na daal ci gis-gisam ki nga xam ne mooy Bombardier amul benn sens ci digganteem ak ki nga xamante ki ki xam ne mooy Balla Gaye amul Bombardier amul benn sens ci digganteem ak Balla Gaye ndax Balla Gaye ko gën a pare. Balla ko gën a pare beneen combat bañ ba pare na nar a taxaw booy mbuur na moo daje nar a daje kenn mooy aada. 25 juillet waaye seen premier face to face Mbour Géej lay amee samedi bii nii Mbaye Babacar. Boubacar Niang moo taxawal boobule combat borom euh, Ama Evans euh, booy Mbour ak Ada Fejoor ñoo fa fas yéenee daje ñu fas yéenee def seen première le 20 loolu le 25 la fas yéenee am incha allah ñu fas yéenee def seen face à face incha bu ci yàlla àndee suba foofu ca mbuur mu nar a nekk face à face ba nga xam ne ñaari xale. ñoo koy def ñaari espoir làmb ñaari xale ya nga xamante ne bii mbuur dalee na yaakaar ci làmb parce que kii euh, tête de file la fa mu nekk kii poulain bombardier la mu nar a nekk combat ba nga xamante ne bii euh, Boubacar Niang moo ko tëgg wante toxtal na ci yeneen juróom-ñetti com yeneen juróom-ñaar ñetti combat mu nar a nekk juróom-ñetti combat. te noonu nag ren DKR lañ jëm moom nga xam ne moo ñu indil dix grands combats ci benn journée. Mm. di la vingt cinq. këttan la bëri grand combat bi nekk la ak Marley waaye nag teg na ci Eumeu Sène junior ak kalmandoor ñee dete waaye mu doj ci wulli mm. mobile 2 mm. Ibou Ndiaye Obali mm. Boy Plateau ki nga xamante ne nii mooy Laurent man combat boobu moom dama koo bëgg combat bu sama combat la ak Boy Plateau combat sama combat la maa ko bëgg sama bopp Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee Rens DKR dafa tëgg événement ba nga xamante ne bii fukki combat la tëgg mais ñu mën ci jukki ay combat yi nga xamante ne bii bu mu ci tëggoon benn combat ci benn stade rek grand combat la ne ko réel mooy bëre grand combat ba ak Marley. wante mën nañ ci jàpp ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Bour Sine ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, mobile 2. woo combat boobu grand combat la ñëpp xam ne na Bour Sine mobile 2 bu ko tëggoon Iba Mar Diop wala arène nationale rek day fees mu toftal ci Eumeu seen junior ak Kalmu wante loolu doyul mu ne dama ciy teg Pape Thiam ak Kool bu Zap. ñu ne ko déet waay mu ne dama leen di jox buur Siteu ak Malick Ndiaye 37 fu ñu ne ko fa ngay yem mu ne déedéet dama fa yem ndax xulli mi nga xamante ne bii moo gën a neex ci mbër yi moom laay boole ak Adama Diouf mi nga xam ne bu la daanee bu la bëree bu bëree yow ba pare bu la daanee day përee wante combat bi nga xamante ne bii mooy combat jàq bi diggante Laurent Ndiago noo ko tuddee njaago or bi njaago mm, mm, mm. Etienne mooy nee mooy njaago or mooy njaago or bi ak ki nga xamante ne bii mooy caatu plateau booy neex a ngi doon waaw mm-hmm. di bu na ne combat boobu moom dañ si DKR Alain Jumbo mm-hmm. combat nga te noonu nag les arènes lañ jëm les arènes la comme xëyee ci xëtam bu njëkk mooy Siteu face à l'équation de Papa Sow ñu xool ndax Siteu dina réussir gannaaw bokk ki nga xamante ne bii moom mooy gu euh, Siteu gu ban gannaaw bokk guy gi daanee booy say freiné ko ak Sa Thiès ñu ne est-ce que dana réussir ci kanamu Papa Sow. Papa Sow mi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla moom tamit ah dafa jóge ci ay tolof tolof de. ndax ki nga xam ne mooy Lac 2 daan na ko ak Ama Baldé ñoom ñaar ñëpp combat bi kenn amul droit def ci erreur. Siteu ak Papa Sow ñu nar a gis combat ba nga xamante ne bii combat bu nar a neex la ndax sita pare na Papa pare na ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi tëkku sa morom mais incha allah le premier août bu ñu dajee lu mën di xew. lu mën di am. danañ xam ne làmb dana fa am. ci loolu nag ba léegi journal des arènes la ñuy desandi ak tournoi CBAO ba ñu peut prévoir. Mhm. en mois de novembre. li ñuy laaj na mooy comment contrer la méforme des lutteurs. naka la ñuy def ba moytu mbër yi bañ a nekk ci état bu baax ndax xam nga ne tournoi CBAO moment bi ñu koy tëgg day fekk saison bi day tëj. Mhm. mbër yi. Euh, ni ñu war a respecté seen ay entraînement duñ ko respecté ñu ne mbër yi nga xamante ne bii ñoo ci war a bokk nag di juróomi mbër yi war a représenté Sénégal mhm. ci tournoi CEDEAO boobu war a am juróomi fan bu jàpp juróom-ñaari fan ci weeru novembre yi ñu dëgmal naka la ñuy def ba mboytu mbër yi bañ a ñàkk seen forme Aboura Sarr ne dinañ ci am solution moom mi nga xamante ne bii moom mooy coach équipe nationale nee na dinañ ci am solution ndax dañuy organiser li nga xamante ne bii mooy ay regroupement parcelle ci euh, mois d'août bi dañuy woo équipe bi dafa ak ñoom vendredi samedi dimanche ñu entraîné après ñu bàyyi la ñu dem ci mois de septembre bi tamit dañuy defaat noonu. vendredi samedi ay vendredi samedi dimanche ñu woo leen ñu entraîné après ñu bàyyi leen ñu dem bu demee ba euh, compétition bi gën a jege nag ñu woo leen def ak ñoom regroupement ba nga xamante ne bi na leen di fermer ñu entraîné leen bu baax a baax ngir ñu waajal. Mhm. tournoi boobu nga xamante ne bi Sénégal tàmm na ko miin na ko. te it xam na la muy saf. xam na la muy saf ca noonu nag ba léegi côté jamono la ñuy desandi ak choc des rois bay amee nee na Balla Gaye 2 ba 52 va durer moins de 5 minutes maanaam combat bu gaaw nga nar a gis jour boobu. nee na ci xalaatam combat bi du am juróomi simili ñu laaj ko lan moo tax mu ne ñoom ñaar nekkuñu ay mbër yu toog di xaarante Bombardier arbitre bu soufflé day dox sa kaw. Balla Gaye arbitre bu soufflé day dox sa kaw te ñoom bu ñu dajee rek combat bi war naa mën a jeex. loolu moo tax mu ne euh, combat bi ci gis-gisam ak ci yaakaaram du romb li nga xam ne moom mooy juróomi simili ndax ñaari bërekat lañu ñaari xeexkat lañu te kenn du xaar sa morom kenn du xaar sama loolu moo nekkoon li gën a fas xibaaru làmb Mbaye Babacar looy tàggatooyee. Euh, jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla day suba ak jàmm ñaanal leen tabaski jàmm ak salaam comme ni ma koy waxee rek yàlla nañ ci dugg ci bisimilah rahmaani génn ci ci alhamdulilahi rabil alamin incha allah yàlla nañ fekke tabaski yu bëree bëri barke Seydina amin waaye tey def nga la nekk ci revue bi noonu laay def dañuy jaajëfal ko bu baax moom Mbaye Babacar borom dëkk ba boroom dat bi sadata voilà. loolu waxoon naa ko du ci dellu subaat. d' accord léegi jeex na jeex na. dat bi moom may na ko Pape Thialis le 8 août la. na ko ñëpp waajal tafaateen booy ñaar. combat bu mag boobu nga xamante ne bii ah ci luy baax lay doon noonu laa ko tuddee du am roq bu sedd tafaatin ku ne gis na démb vidéo bi ñu dugal la mu ca wax. xaar leen beneen vidéo Boy Niang mi ngi ñëw incha allah da ngeen dégg la mu ca wax tamit ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi tëkku sa morom. Mhm. ku ci nekk yaa ngi yaa ngi artu sa morom ndax combat la ba nga xam ne. dafa nar a metti mhm. incha allah le huit août ca arène nationale. bëgg moom bu baax a baax waaye di bëgg sama caméra woman bi Fama damay kontaanee ci moom Dramé Socé wala Dramé Tukulóor ok Dramé Tukulóor damay bëgg ci moom bu baax a baax noonu lay def sant gërëm équipe technique yëpp cat ba cat commencement ba fin. matulaam mauvaise gaawal def différence on t'attend ah yaa ma gën a xam ba lëkk incha allah ci Leewtoo TV.